أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waaleykum salaam
jazaakum Allah xayran ñaari mbokk yi nga xam ne leeral nañu leeral bu am solo muy Serigne Khadim Ndiaye Arachid ci organisé bi nga xam ne ni jullit war na ko organisé ndax wax na ko ci njëlbeen bi ne bu fekkee ne organisé wuñ dafa mel ni kon dañoo dem ne la suñu diine te loolu mooy lu wér macha allah jàngee nañ ci lu bare bare bare ak mbokk mi di Serigne Niang Mbaye moom it ci wàllu ak seet mu leeral ñu ci lu am solo kon daal ñu dégg ne kon jullit moom moo moom organisé waaye jullit moo moom seet ndax borom bi tabaraka wa taala moo ko tëralal ah ni nga xam ne noonu la war a organisé woo waaye moo ko tëralal ni mu war a seetee kon mu mel ni foofu damay laaj kon ci wàll ñi yëngatu muy daaray alquran kon daal ni ma déggee mel ni ne kon nekkul ne damaa yor daara alquran ah sama maam yoroon na daara alquran ah moom mot la doon jàngee ah ci jamonoom ma ñëw naa ba ci sama jamono ah mot boobu jafe na ma moom la ko la ko jafe woon maanaam moo ko yomb man li nga xam ne moo jafe woon sama maam man moo ma yomb li ma ko wax mooy courant wala lu demee ni courant lu ko jafe woon la mot a ko yomb woon ah man nag mot dafa maa jafe waaye courant moo ma yomb wala mel ni courant kon ah ndax foofu damay wax ne sama maam mot la doon jàngee damay continuer di jàngi mot par exemple ah samay doom ngay maam dañ daan jég ay ba ay lañ daan sangu ndax mooy damaa war a def noonu ah ñoom ñaari mbubb lañ yoroon ndax jamono jafe woon ba amuñu woon luñ sol dañ daan am ñaari mbubb wala ñu am ñaari tubéy wala sax dañu am tubéy dañ doom yi dañ daan ngémb ndax dañoo war di ngémb ba léegi waaw li ma bëgg a wax mooy ndax civilisation ba amoon ci jamono boobu ak bi am léegi ngir ay moyen waral ko ndax dañoo war a tënk foofa ba léegi wax ilaa boobu ah dañoo war a tënk ci jamono ji ni muy doxee loolu laay laaj salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu
waaleykum salaam wa rahmatulah barakaatu defe naa ne ñun ñëpp déggandoo nañ laaj yi laaj bi nag daa mel ni dafa laal ci ñaari wàll yëpp dafa laal ci organisation waaye laal ci li nga xam ne mooy civilisation kon ñu jox Oustaz Niang Mbaye incha allah mu jéem a tontu ci laaj boobu bisimilah.
alhamdulilah xam naa bu dee laaj bi dégg nañ ko bu baax li ci suñ ko wàllu bariwut mooy lu jëm ci wàllu cet gi bu ñu seetloo yonente bi alayhi salaatu salaam nga xam toujours lépp loo xamante ni jaaxal nañ suñu wàllu diine ca moom lañ koy delloo ndax mooy dellookaay bi jamono dafay soppeeku day njëkk doomu aadama ba léeg-léeg lam manoon daaw du ko man ren mu njëkk ñële yomb yomb ñëw ci ñii waaye bu ñu seetloo l'islam moom doomu aadama toujours buy def ca lam am ak ca lam man rek la koy sal tënk ndax laa yukallifu allahu nafsan illa wusaha ak laa yukallifu allahu nafsan illa ma ataha bu dee ci wàllu def def la akub jox jox kenn waxul nit defal loo mënut wala ñu wax ko nu mu tuddati waxal loo mënut bi yonent bi dund sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu ñu seetloo jàkkaam ja ci tàmbali lislaam bi xam ngeen jàkka la joo xamante ni la ko fare woon kaw suñu seen ngi yee ko gën a baax ndax ay ay lii de tàndarma la ay xëddeen xëddeen.
ay xëddeen boobu ak i photo yo boo seetloo daanaka daal ci tàndarma ya moom la ñu taxawal garabu soma tàndarma moom la ñu taxawal mu nekk ay photo jàkka ji meloon na melokaan boo xam ne amul ci commencement bi amuloon ay bunt yi tëjee bii tijjeeku léeg-léeg sax am na ci riwaaye bu ñëw ci Sunan Abi Daawud ni xaj yi sax daanañ dugg ci biir jàkka ji léeg-léeg sax ñu taw fa bu mu saana taw da ngay gis ni day tooy bu naajaan léeg-léeg nga gis naaj wi laal ñi ci ñenn ñi da ngay gis saxaaba yi ci tàmbali lislaam bi am na ci ñoo xam ne seen ak néew doole àggoon na ci buñ mësaan di ñëw juma jàkka ji xam ngeen ni dafa gàttoon ndax Xasanul Basri biñ ko laajee mooy waaju am taxawaay bu dee nii rek laal ca kaw kon loola gàtt na ñaareel bi mooy xat na tamit ndax dafa tuuti woon bu ñu mësaan a dugg ci biir jàkka ji da ngay gis ni xet da daan am ci jàkka ji li ko waral mooy da ngay gis koo xamante ni menn mbubb mii la am wala nga gis ko xam ne ay moyen am yéegut fenn fi wala boog xataayu jàkka ja waral ko ak yu bare bari yoo xam ne du seen ñàkk a set ñoom déedéet waaye situation lenn ci situation yi ñu doon dund la ba benn bis ci la yonent bi dugg ci jàkka ji gis ni jàkka ji kat xat na mel ne nangam ci la daal di wax ni ah képp kuy ñëwati jumaa kat na nga sangu sangu set kon benn ab départ boobu ndax jàpp na ne bu sangu amee rek ak na nga tànn ci yére yi gën a baax ila axiri yi fi déjà di commencé soppeeku loolu dem na woon jamono daj na parce que jamono ji loolu lañ tolloon waaye même ñooy yooyee nit ci balaa yonent bi sasam ak dundam di jeex suttuwaat nañ jàkka ji mu gën a baax ci jamonoy Abubakar jamonoy Omar ba ci jamonoy Osman jàkka ji gën naa yaatu ba léegi macha allah kon la muy wane mooy jamono ji lii lañ tolloon wax dëgg yàlla buñ demee ba jamono ji gën a avancé tuuti nit ki lam am te islam terew ko da koy daal di jël kooku benn la beneen bi ci des mooy boo ñëwee ci wàllu doomu aadama lii mënu ko woon bi ñuy wax ne ku mel ni imam Shu'ba toog na ab diir bu yàgg yàgg yàgg yàgg kawar gi da ko bàyyi noonu rek mu sëq rek watu ko ba am na jamono sax teeñ da caa nekk bi ñu ko laajee mu ne damaa toppoon di saa ko xam-xam ba ëwma lu ma watoo kooku da ko amul waaye bu ko amoon dana ko def loolu kon dafay wane maanaam nit ki ne doon toll ci ay situation wala mu doon ci jamono joo xamante ne xëy na lii moo fa sës waaye nag su yàlla soo tala soppee mu daal ci soppi soo ko tënkalee laaj bi nag kon mooy daara yu jëkk yi wax dëgg yàlla ku xool da nga xam ni bala ngaa lekk da ngaa yalwaan bala ngaa niitu jàng da ngaa taxani daanaka ndox mu ñu naan muutu nit ñi kon ndox mu ñu sangoo taxut di wax dëkk boo xamante nii nee nañ la teen ya fa nekk daanaka ay mbaam ñoo koy jukki ndax juróom benn fukki mètre la wa illaa bala ñoo am ndox kenn xamul nu mu toll kooka buñ nee la kat daan toog nangami fan du sangu mbaa ñu ne nangam dama jàpp loolu du ñàkk set waaye ñàkk ay moyen ko waral kon nag bu ndee ba li li soppee ko wax dëgg yàlla wareef na ko mën a soppi nit ki ci wàllu cet gaag ci wàllu la muy sol ak la muy lekk la muy naan lépp duñ nekk ak cet am wallahu taala alam
baarakallahu fi kon ñu doon wax incha allah débat bi bu fekkee ne soxna yi am nañu ko bëgg a laaj mbaa mu yokk leeral ci li nga xam ne moom mooy ñaari point yooyu ba tey ñu jox leen fekkee amut incha allah mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci place bi am na mbokk muy yëkkati loxo tur bi naka. ah. Maxtaar Konte. Maxtaar Konte kon ñu jox la micro bi incha allah. Maxtaar Konte.
asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatu.
maa ngi leen di nuyu yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi di sant yàlla bu baax di jëli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ñaari ustaas ba ñett ñi nga xam ne yéen a ngi ci seq taawal yi ñoo ngi rafetlu seen taxawaay ci daara yi ak ci diine yi ndax li fi rot lépp wax dëgg yàlla lu leer nañ ñi la li ngeen ci watal nañ ñi la alhamdulilah ki sant Baye nag moom sant amee rek moo xaw a doy waar moom la ko sensé ndax Baye mi dafa doxul li ci topp li ma bëgg a laaj comme jotaayoo xam-xam la laaj bi day gën a leeral di gën a fàttali di xam la it waaw ku xamutoon mu xamal la ku xamoon mu fàttali la wala mu gën laa leeral li ma bëgg a leerlu nag mooy nga xam ne soxnaam dafa sàkku ci moom ne ko man de damaa bëgg nga may ma sama baat lii wolof yi di wax naan xaaral ma laal suuf sax ndax ñoo taamu di wax loolu bu waxee loo xam ne dafa xaw a rëy rek da jox ne xaaral ma laal bant wala ma laal suuf léegi nag mu ne ko waa baax na dégg naa li nga wax daal di dem moom it xalaat ca ba far sax bind leetar bi nga xam ne moo war a dox moo war a tagg seen diggante ndax soxna si kat moo ko laaj ne ko damaa bëgg nga may ma baat léegi mu bind leetar bi nga xam ne mooy firndeel baat boobu moo war a may soxna si sa soxna si ñaan ko ko bi ko bindee ba pare nag yàlla dogal na moom soxna si bi ko takkee noonu bëggut ak moom bu ko soxna si di ñaan baat boobu fekkut moom ak soxna si ñu nekk ci génn kër léegi nag bi ñëwee ba këram ci la xalaatul taat ci loolu bind leetar bi demaat ci kër soxna sa yóbbul ko leetar bi bi mu demaatee nag balaa leetar bi di yegg ci soxna si ñu fara waxtaan ba jubóowaat ci diggante bi léegi ñu ne bu ñu waxtaanee ba jubóowaat ci diggante bi soxna si ne ko waaw ah yow kon li ma la waxoon da nga ko bëggoon a def mu ne ko waaw dama ko bëggoon a def kay ndax man bindoon naa benn leetar sax leetar baa ngi mu ne ko ah mu ne ko waaw mu ne ko ana leetar bi mu génne leetar bi soxna si këf leetar bi bi mu këfee leetar bi ne ko léegi de leetar bi jot naa ci mu ne ko ah yow boo ci jotee nag mu ne ko li ma bëggoon xam naa ko ah yow woo ko ne waxtaan bi woo ko ne dañoo waxtaan ñu waxtaan bu ñu woo nga mu ne ko non danaa la ko jox sax waaye léegi damaa bëgg nga bàyyee ma ko ba suba ko andi ko ko ba mu yegg mu bàyyee ko leetar bi ba suba léegi nag soxna si tel bi tourné waat bu bëgg siifaat la mel ni dañoo waxtaanoon ba jubóo mel ni soxna si daal daf ko bëgg a piété waat gannaaw jël na leetar ba léegi nag loolu ndax affaire ba dugg na wala dugg fase ba dugg na wala dugg parce que am na ñoo xam ne dañoo xam ne fase bi fase forcé la soxna si da ko forcé ndax loolu fase ba taabi na daal wala taabiwul gannaaw ba mu jotee leetar ba nag daal loolu daal parce que question bi dafa xaw a gudd boobu loolu daal mooy li nga xam ne moom laa bëgg laaj première tomb boobu.
yàlla bu sey bu tax yàlla bu mu tax xam kay man bala ma war ma war ma waaja amoon xaram mu dee mu xëy te xar mi duuf lool xam naa moom jege na mbayeen wala kii mu daal di ñëw ne ah soxna si dëgg ñu laaj masala mi xar mi kat moom ëpp naa sànni noonu daal di ñëw ne salaamaaleykum sëriñ bu baax bi nga xam ne doo tax yaakaar doo fekk la wala rek man nag dama amoon sama xar moo xam ne mi xar mi daa duuf ba duuf ba duuf ba bu naaj wi tàngee fu mu tëdd foofa day niin mu daal di ñëw mu ne xar mi nag ci fajar la dee waaye yàlla xam ne ne julli na fajar ndax bu ma nee allah xar mi na mbee ma ne allah xar mi na mbee xar mi nag bu daganee ah ñu togg ko bu daganee gën a yi lakk ko sëñ bi ne ah loolu doy na waar mu ne ko faa bi jóge ñu dem doy na waar sëriñ ko mu tëdd dara dootul ko waaye may masala mi sëriñ si sëriñ si teew yow nga nit waaye ñu ngi teew si ak ak ñu teew rek waaye daal sëriñ bi yàlla bu mu tax daal ah kon kon kon masala bi dafa maanaam dafa mel ni dafa jublu ci fiq jubluwul ci maanaam organisation wala taxaara comme niñ ko doon waxee kon daal incha allah sëñ Xaadim.
yéen bisimilah waaw Mbacke joxal la loolu dégg naa kon rek masala bi dégg naa nu nu nu sëñ bi wax mbaa du kon doyoon naa rek.
wala ñu mujjee ko mujjee ko wala jàpp jox sëñ Ba Mbacke rek.
ñu mujjee ko incha allah kon ñu def noonu. ala kulli xaal ñu dellu si waat ci kaabal ji bu soob yàlla dañu noonu dañ koy jàllawle laaj bi ñu laajoon sëñ Xaadim tey oustaz Niang Mbaye lañ koy laaj oustaz bi ñu laajoon tamit naa maanaam laaj bi ñu laajoon oustaz Niang Mbaye sëñ Xaadim lañ koy laaj kon sëñ Xaadim la ñuy tàmbalee moo ne ci ndeyjoor l'islam ni mu bëggee paxaara te mooy laab yaa ñu ko yaa ñu gàggat bi te mooy set ni ko islam fonkee ak ni ko diine jàngalee te ñun daanaka boo demee ñiy dessiné sax buñ dessiné dong daara bi dessiné élève bi day jël élève bi nga xam ne moom français lay jàngi rek setal ko lool solo ko yëre yu set yu ligg daal di jël dong daara bi lay sàmm daal di koy melal melokaan boo xam ne mooy melokaanu ku ci mën jox ko pot boo xam ne bii xëy na du set itam daal di koy loolu sax boo demee ci école yi sax bureau bureau directeur yi da ngay ñuy dessiné ko teg mu mel ni élève bi mooy xëy di sarax dongo bi mu yor melokaan boo xam ne fi mu ne nii maa ngi koy gis ci ci ñu ñu di ko dessiné kon loolu itam te ñun ñuy waroon a jàngale set yow sëñ Xaadim loo ñuy wax ci loolu bismillah
bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin comme nga xam ne ñun dañoo yor ay daara di jàngale alquranul karim ni ma ko waxe woon léegi ci njëlbeen bu waxtaan wi ñoo war a gën a yittewoo li nga xam ne mooy set waaye set nag jëmmi xale buy jàng alquran dafa laaj ñu ko ñu taxawu ko ci
ndax xam ngeen ne xale euh, xelam guddeewut noonu léeg-léeg mbir mu am capacité bu di ko def na mu ware te waxtu wam ko war a defee loolu day xaw a jafe ci moom loolu moo tax mu laaj ñoo xam ne dañuy taxaw ci wetam di ko soññ ci loolu ñu ko gite léegi ñu ko gite bi ci guddi ci suñu xaadim Jóob fii benn doogo boo xam ne dañ doon lakk fii jën xam nga Louga yi dañuy lakk jën bi ñu lakk jën ji dongo bi maa ngi koy xool mu nekk di jën ji bi mu noppee mu fompoo ko fomp ko ci yaramam bokk na ci li ko suñ xaaj wax ci guddi nga ma seetloo ko mooy da ko wax ne ko bala ngaa tëdd demal nga sangu ci xam ne du guddi nga xam ne maanaam fii daa sedd lool ba tey jii sax daa sedd te wala wala nekk sangu bi mu duggee fii dama ko yërëm ndax tooy bu mu tooy ak seddaay bi kon loolu misaal la rek ci ne yow miy jàngale alquran itam da nga war a bàyyi xel donga yi lépp luñ def bépp acte buñ def boo xam ne dafa safaanoo ak set nga xamal leen ne leen lii ci boppam yéen warut ci yéen keneen a ko waroon a def ngeen dindi ko waaye yéen ay niti alquran ngeen nit ñu laab ngeen seen téere bi dafa laab seen diine ji dafa laab seen yonente sallallahu alayhi wa sallam dafa laab kon yéen da ngeen a war a nekk ci loo xam ne lu laab la bu njëkk nag ñun ba ñu nekk ca daara yi loola dafa amutoon ñu baal ma ndax suñ daara yi bu njëkk damaa xamutoon lan moo ko daan waral waaye daanaka donga yi seenu cet taxutoon mu yitteeloon leen lool da nga daan yelwaani ñëw ak sa kotub ndagg mu fees dell ah boo ñëwee nga teg yow bi yow bi ngay teg kotub ndagg bi rek sa loxo yaa ngi ànd ak niinaay boo xam ne ak taqaay boo xam ne waaye kenn du la corrigé ci biir daara ji du suñ daara bi du keneen mag ñi nga xam ne ñoo yelwaani wut te nga xam ne ñoom ci pot yooyu la ñuy lekk itam kenn du ci ñëw di jéem a wax naan pot bi def na nii def ko def dañ ñëw rek sàmbali ba dañ daan def dafa yu doy waar yoo xam ne boo ci toogee di xalaat da nga naan boole ko nag ak di ko layal naan yàlla mooy garanté donga loolu ci gën a doy waar mooy yow yaa ngi def loo xam ne dafa dëpp ko wut ak sa diine ba àggal wëlbatiku bëgg ko wutal aw aw lay ak wax donga yi bëgg dee ma ne ko fañ daan tudde ay syndicat donga yi dañ fa daan dem xool fa labaraan de nekk la ñuy wax labaraan labaraan mooy mango joo xam ne dañ koo seppi ci biir mango ju baax ja def ko ab jal bu yaatu boo xam ne dara baaxu ja ay weñ rek fa nekk donga yi foofu la ñuy jubali buñ demee ci jéema génne ci biir labaraan ji bala ja fa ne loolu lañ daan def nga xam ne ngay génne boo xam ne am nañu la ca jàppale nga xam ne bii tane na yow itam nga gëm ne bii dafa tane nga nekk ca lool loolu doy waar la loo xam ne bii mën naa am ba léegi tawat yoo xam ni da koy jaa jànkonteel foofu la ko jëlee woon ndax suñu borom subhanahu wa taala moom ni binde mbir yi noonu rek la ko bindee ay xisbe yi moom appareil yi mu la defal moo xam tàmbale ko ci jihaaz xawdu bi bi ak yeneen ay xisbe yi ci yëpp dafa am lu ñu soxla dafa am lu ñuy laaj boo leen ko joxut mën naa bañ a manifesté wu fi mu toll nii teen mi mën ngaa dem ba ca kanam muy manifesté wu parce que borom subhanahu wa taala nga doon nit ku baax ak nga doon keneen ñoo ci yem dafa am loo xam ne moom wàllu ay sunanam la ay tëralinam la yoo xam ne ngeen ci war a bàyyi xel kon dafa am loo xam ne ma nga doon teel booba ci jëm ñi dongo bi ci boppam ndax moom mi ngi jàng alxuraan mais li muy jàng xënu moom sax dafa jàppoon ne daara ji ci boppam dañ ko fee tëj nii rek saa bu amee alhamdulilah saa bu mënee génn génn waaye xamutoon alquran ji suñ daara bi mosta tooge moom di ko firil wa siyaabaka faqahhir mosta tooge moom di ko firil xudu zinatakum inda kulli masjid mosta tooge moom naan ko am na ay rijaal yoo xam ne yàlla da leen a bëgg ndax dañoo bëgg a laab fii rijaalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu wallahu yuhibbul mutahhirin suratu Baraa suñ borom subhanahu wa taala man koy nettali masjidu waa waa waa waa Quba saxaaba yi lanfaar yi yàlla ne ci jàkka jooju am na fa ay góor yoo xam ne ñoom dañoo bëgg a set bëgg a laab te yàlla day ku bëgg ñuy laab la salaam salaam boobu bi ay wàccee dafa da leen a dajale leen waaye lu ngeen di laabe lu mu doon ñu ne ko dañuy jëfandikoo ndox mu ne huwa zaaka fa alaykumu li leen yàlla lay tàggee ci alquran mooy ndox mii ngeen di jëfandikoo su ngeen demee coono yi kon na ngeen ci téye ak seen fukki loxo bu leen bu leen ko bàyyi kon ñun boobu dañoo may woon suñ daara buy toog ak ñun di ñu leeral alquran ji ak li mu làmboo moo taxoon nga daan gis donga boo xam ne day sàcc day sàcc sàcc bu leer marché ba doo ngay ne daan sàcc bal dañuy sàcc suñu daara bi ci boobu sax man moom mi leen di jàngal dañuy dugg biir néegam mu yónni leen fa ñu fekk sumb ba nga xam ne moom lay ñu ñu ñu def seen poche génn mbaa gerte gi ñu ak baxal gaw ñu ko gerte gi ñu baax a nga i affaire yi xadisu wala xare kon ñu ngi ci biir daara ji di jàng alxuraan di sàcc ñu ngi ci biir daara ji di jàng alxuraan di wax lu dul dëgg ñu ngi ci biir daara ji di jàng alxuraan di wor di def ay yëf yoo xam ne kiimaan la waroon ko bépp sax xam ko nga xam ne naan dañ dañ daan wax loo xam ne wax dëgg yàlla en réalité dëgg la woon donc ngay ku fa maanaam gis sa ganaar sax muy wëreelu maanaam ki da koy ñàkk léegi nag te donc yi yalwaani dem takk fépp diw ko ci seen yaram yi diw ko ci seen yére yi léegi-léeg sax dooga boo xam ne day ñëw rek daal di sànni pot ba fële ne aywa ku ku ku am doole rek ñëwal maanaam doo ba doo xam daal doo xam daal dëgg-dëgg maanaam ñii li maanaam lii lu mu doon doo ko xam ci jamono boobu doo xam lu mu doon dañ daan soosi daa ñëw xool miir yi nga xam ne koo peintre peintre bu weex ñu ko ñu koy essayé daay yàqal ko borom fàtte nañ wallahu laa yuhibbul fasaada fàtte nañ wallahu laa yuhibbul mufsidiina ba fàtte wuñ ko li boo xamul bañ demee ba yàgg nag yi soppi ko comme ni ñu ko doon waxee léegi léegi mu commencé léegi ngay gis ah ñoo xam ne wax dëgg yàlla ba ñëw bi daara dañuy jàng seen diine jàng seen xam-xam xam lu bëree bëri ba yëg ne ah ndekete kat ñun lañ doon def démb am na ci loo xam ne ay njuumte la woon su ko defee loolu moo tax tey yaa ngi gis ci daara yi loo xam ne ci jamono boobu daaw ko gis tey da ngay gis donga yi rawatina daara yi internat yu mujj yi nga xam ne ñi jéem a góorgóorlu ci wàllu seet ndax am na ñoo xam ne moom ba léegi dañoo jàpp ne fii ci asaala bu njëkk ba daa bokk ci jëmmi maanaa daa bokk ci yëf yi daal mu benn waaye ba sama ko xanaa man fi mu toll li ma gën a neex mooy daara joo xam ne mbaaru mu rëy moo xam ne takk rëpp donga yi nekk ci biir loolu suñ bi lu am solo la ah foofu al buub alxuraan bi foofu ko ngay gën mu ne pour buub alxuraan bi foofu lay gën a feeñee da nga xam rek parce que nit léeg-léeg mu feebar loo xam daf feebar alxuraan bi bu bu bu bu ñu amoon jaww bi set donc nga yi koy jàng set wécc foofu la góobi doo si génn fe feeñee dëggantaan kon gis nga léegi donc dañuy julli fii fajar dañuy julli fajar di julli tak timis di julli tak soixante ñun yëpp dañu koy julli ànd ko ngoro boole ko jàpp dañuy jàpp te lépp dañ koy def bu njëkk wallahi man samay daa daa yëpp ne woon yooyu am woon am woon da nga daan xam sax ba xam seen daara bi maanaam mësu ñoo dóor ci julli mësu ta xam sax ba xam ñu ngi julli wala julli wu ñun buñu jabaane bu ñëwee rek sànni suñu ko dem tëddi nelaw duñ julli fajar duñ julli suba duñ julli gee duñ julli dara loolu nag wax dëgg yàlla la ko defoon man jàpp naa ne xëy na ak ñàkk xam la woon mais léegi daara yaa ngi tane parce que bii léeg-léeg ngay dem ci daara yoo xam ne sa fi mu toll nii demee daara internat yoo xam ne moo gën a sax taaru kër yi kër yi moo gën a sax set kër yi moo gën a sax kër kër yi te loolu maa ngi ci soññu sama bopp di ci soññu keneen comme ñu ne sa daara bu setee am na doomu aadama yoo xam ne buñ ko duggee rek dañuy xemmem daara ci gis nga fay dogga bu ñu setee laab am na ñoo xam ne dañuy xemmem ak indi seen doom ci barab bu mel noonu mais say donga bu ñu tappee sa daara bu fekkee ne dafa setut am na ñoo xam ne dañu fi ñëw sax yéen a jëleen ba indi woon mooy jox la ab donga mais dañuy waxtaan ba àggal dem doo leen ñu sax c'est parce que condition yii nekk ci biir daara yi xam ne ñu bëgguñu seen doom tëdde noonu kon daara yi benn man ngaa wax ne aw ma ay moyen bay jël am min daan mooy badal daara ji suba ngoon mais man ngi nag man ngi ci daara ji rek lu tee ñoom ñu mën leen a tàggat ñu mën di bale daara ji suba di ko bale ngoon surtout fekkee dafa am jàkka ñu xamal leen xiimab jàkka ñuy setal jàkka ji xale yi buñ demee ba temps mu set day mujj dañ am raaxa parce que bu setee daf koy yëg day mujj nekk habitude ci ci moom moo tax am na lu mu toppe woon ca daara yi njëkk yi ba léegi nga gis koo xam ne day dem ba sax am ndeysaan macha allah am soxna waaye rek comme donga la woon bu njëkk te dafa dafa tàmmoon maanaam sangu daanaka ñaari semaine yu mel noonu mais dafa am soxna su ko dëkk ku taaxee nga xam ne dafa xaw a dëkk ko comme problème dana ko am moom.
li ñu tuddee nëbal nëbal.
ah mi ko muy nëbal.
xam ne wax dëgg yàlla moom jëm moo xam ne am na lu mat ñaari semaine yu sangu boo boo def ko ak am soxna wax dëgg loolu xaw naa doy waar daal. moo tax am na ci xeetu habitude yoo xam ne dañoo topp topp nu topp nu ba nga xam ne comme mu jëlee ñenn ñu ko def rek ñoo ñu tooñ loolu bokkut ci lislaam bokkut ci ak nité bokkut sax ci am xel kon daal damay wax ne alhamdulilah yëf yi soppiku na léegi nit ñi xam nañ ne léegi dañoo war a set am na daara daara dama daara yi soxna Adja bi ca caw ma dugg su dugg demal mu dugg fa dugal ba saare baara ñag mii ci route de Boune dem naa ko benn bis ànd ak suñ xaadim yi bis boo xam ne si waajur yi dañuy ñëw bis boobu di siyaare donga yi su duggee da ngay sa xol day set su xol day set daal di set set wicc ba donga yi dañoo taxaw ci bunt bi sax boo ñëwee booy dugg sa dàll yi dañuy ci am mbuus lañ lay jox nga dugal ci sa biir dàll yi nga soog a dugg donga yi tam ci bunt bi def loolu nga xam ne fii dañuy xam ne ah ndekete alxuraan set set la war a àndal ndekete alxuraan set dafa war a ànd ak laab su ko defee li nga xam ne sax ñoom li li leen gàllankooroon ba nangu ñoo jël seeni doom di ko yóbbu ca daara ja mooy nañ gise woon daara démb dem nañ ba bët boobu ñu ko doon xooli soppeeku na léegi moo tax ki na ma tardeel boppam tey jii mooy ku bëgg a nekk ci lu njëkk la démb nit ñi comme ni nga xamee ne tey bu njëkk tëju yi dañuy yëpp amutoon nit ñi dawul ko bàyyi xel da nga daan ndax ma man ñi itam am na ñu doon ñàkkoon ay moyen moo taxoon mais du seen du woon seen bëgg-bëgg xam nga ki nga xam ne moom ba muy ñàkk ci misaal ay moyen ci wàllu tëju yi mënta woon a xam xaraf bu nekk ban place lay génne fexe woon na ba di ko jéem a ràññeekle ci aw lakkam xam nañ daa tuddee alqiraa al biiya li la wër nga di ci xool lu nuroo ak xaraf yi di ko jàngale di ko jàngale ji da nga daan gis ñu naan ayin gimiñu till maanaam li ñu daan tuddee ayin gimiñ till maanaam boo ko mën a gis boo jamono boo génnee rek gisul gis till yi ñu wëreelu ci àll bi. jimi ji ni mu forme bi ñu yor moom la ay doomu yor wala ñu ne ay ndégal ay ndégal mooy ay dégal yi ñuy waree aw fas niñ mel noonu la ñuy bëggee al alamiina ñu naan ay dé ay ay ndigal ay ndégal noon nekk raa ñu naan noona raa laam nekk raa ñu naan laama raa daa tombe ñu ko nga xam lu ci nekk ñu ngi koy jéem a jegeel léeg-léeg ñu ne siin sii dafa tooy ñu ne siin sii dafa woo bu dee sax ci wàllu rasmu bi nga xam ne tey jii nit ñaa ngi koy jàng wutaloon nañ ko ñoom ay yoon da nga daan gis ñu naan la naara guli kaara ya'un fata ila wa taman fa awlaaja wara an wujuhi afaraay wa qiila yasla fattaqu naara ila naara wattaqu naara yëppulaan man duxila naara aali fa awladahumu naara huudi laa jarama anna lahumu naara namli wara al mujrimuna naara kërfi an wujuhimu naara namli afaraaytumu naara musni wa qiila duxula naara maa daaxilina asar defal na ko ci ay tomb léeg-léeg ñu ne la azwaaju naar xëyalaan yendu galaay gontu fanaani ni saa yi xëyaa dem ba daaw da tomb fa laay ñu nekk ci biir daara ji di yëg muy neex te lii lay wax da nga koy xam nga xam ne lii lu doon ñun ñàkkoon nañ ay moyens waaye ànd ak loola ña nga doon jéem a indi fañ toll wallaahi loolee ñu defaroon ba tey boo ko xoolee day gis ne rasmoo nga ci biir dabtoo nga ci biir bu ci yu bëree nga ci biir mais foofu lañ tolloon ñoom daalika mablaghuhum min al-ilm dañu dañoo foofu léegi kon comme romb nañ foofu léegi nit ñi dañoo war a xam ne tey daara nekkatul fa mu nekkoon démb ñu fexe ba esprit bi nekk xel maanaam li ñu jàppee daara fexe ba noonu ñu génne ko ci xeli donga yi donga bi war a yëg ne man su ma ñëwee suñu kër ci feet gi élève ba ma fa fekk wala sama rakk dama fekk muy jàng école maa ko war a gën a set fuuf ban maa ko war a jàngal li ñuy set bokk mi doon na ko wax léegi tubaab yi nga xam ne ñoom la ñuy tagg ci wàllu set surtout boo duggoon ci avion yi tey dañu gis ne fa ñuy wax ne mooy fa ñuy suusaloo boo fa demee lim mbokk mi wax ne nga fay fekk ay ay musuwaar nga fay fekk ay musuwaar nga fay fekk loolu du ak set ndax l'islam li mu njëkkee tuwo mooy dafa am lu muy tuddee aynul najaasa muy jëmmi sobe ci boppam li ñu tuddee amaana al xabas ak xadas léeg-léeg ñoom bu ñuy taarif dañ naan la yëf yi dafa war a dafa war a jógee fan la fay jógee maanaa ci zaat bi waaye xukmu baax na nga xam tey mën ngaa yi produit yére bi ci boppam bam seen wicc wicc wicc wicc sa lislaam jàppoo ko la ndax jàpp na ne fi mu toll nii tembe comme yére ndox mi nga ko posé comme nekkul ndox moo xam ne ndox mu plak la gis nga ci jàngale téere yi sax boo demee ngay fekk ñu jëfandikoo ay ibaara yoo xam ne yëpp set lay junj tahaaratul xabas tahaaratul xadas sa yére na set sa yaram na set place bi ngay jullee na set loolu lépp jullit bi dañ ko koy jàngalaale ci biir lislaam kon ci gàttal ñun war nañoo wax dëgg yàlla weesu fa ñu newoon démb du ñu sikkal nag sikkal boo xam ne dañ caa jublu sikkal waaye nag danañ critiquer ndax ñun bu ñu waxee démb xëy na yàgguñu ci ay at waaye am na loo xam fekkee nañ man fekkee naa ci daara fi mag ñi di añee niñ daan tudde ay jéng xam ne ñoom lañ daan jéng ci daara ji bu mag ñi añee ba àggal dañuy ñëw fi ñu doon añee di jeexaat fépp ceeb yi doon rot foofu fe- fépp wuñ ci am ñu dugal ci ab pot ba bu ñëwee ba am lu tolloo kub ci bug ñu jël am ndox sotti ci ba suuf si dañ ñu jël benn pot boo xam ne si maa diw defoon na ci ñu dugal ko ci pour mu am diw ñu soog koo lekk fekke naa ko moom ci daari njeereem fa nga xam ne fa ma doon jàng fekke naa fi yëgu dara yëgu dara ak fa xale yoo xam ne démb la woon ci xaaju guddi ñu bàyyi ba xëy di ko tàngalaat fooy gën a di moom sotti ndox pour mu wàññi xoroxaay bi di sotti ndox muy wàññi ko xam ba yàgg ni ne foroxatul te fekk ba léegi mi ngi forox mais dañ ciy def ba mu tafoon alay la rek yëpp ay mbir la woon yoo xam ne si wax dëgg yàlla non ba ko dee xam ñëwaat xam nañ que peut être leen di jàpp na xam ne tën nañ ko baax a baax waaye nag yooyu yëpp wax dëgg wax dëgg yàlla xeewi na bu yàgg yàgg léegi nit moom waratul sax xalaat lu demee noonu yàlla ñu yàlla fayal suñu mag ñi nga xam ne lu baax dong dong moo leen taxaw a jóg dañoo amul doon ay moyens ba ba mu damaa wéy seetaat leen ndax société bi fépp xooluñu nitu daara ci ne kii di yonente bi nee na moo gën ci doomu aadama yi buñ ko doon xoolee noonu rek kon lépp jàpp mais ab suñu daara tey bët biñ koy xoolee dafa bokkut ak bët bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne nañ ko ci xool saxaaba yi bët boobu dañ doon xool ñi ñi mënoon alxuraan ci jamono jooju lan moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam rasootu otoot ay néew tëdd dee moom danga naan dee la dee la rek ñu war a am ay bàmmeel ñu war a am bàmmeel boo xam ne mbooloo lañ ca war a dugalandoo ndax mënuñoo gasal kenn ku nekk lu mu doon wax nañ jiital ayyuhum aksaru ahsan lil Qur'an ci ci ëpp ay aaya yu man ci alquran na jiitu ci bàmmeel bi su fekkee ne tey damaa ànd ak ñaari néew dañoo nekk nii ñaari néew dañoo tëdd ñi leen di rox xam nañ ne benn néew bi ba muy dund mokkaloon na fukki aaya benn néew bi juróomi aaya la mokkaloon bi mokkal fukki aaya moom la ñu war a njëkk a dugal ci bàmmeel bi ba pare beneen juróomi aaya bi doon dugg sama ñaari aaya doon jàpp kon tey wane na ne maanaam nitu alxuraan ba ca sax bu ñuy dem bar sax moo war a jiitu bi ñu nekkee fii ci àddina yi dem ka daal di ya umul qawma aqra'uhum li kitaabillah la salaa dana wax ba noogu boo demee ci réew yi ñu ngi koy jëfandikoo man maa ngi fàttali ko loo xam ne ma koy tudd ngir munaasaba am naa benn yoon boo xam ne dama dem penk benn hôtel bu ñuy wax Miral ma nekk fa ak mbooloo mu bari benn borom xam bu ñuy wax Abdoulaye Moubarak mustashar la ci xaarimal xaramay ñu mu ñëw di def benn muhaadara di xool ba xam ñii ñii africain yi est ce que mën nañ alxuraan ak ndax mokkal nañ ko léeg-léeg bu tuddee benn aaya ne fu mu nekk ma daal di teg sama loxo ci biir mbooloo bi jàng aaya ba fa mu nekk waaye dafa ci seetlu bi ñaari aay yi ma jot a jàng rek te ni mu réele mbir mi ak fi mu ko eggalee ak su ne du mel xaar mu ne ma ndax yow bëgg nga bourse ma may la léegi bourse waaw wax dëgg yàlla fi mu toll nii téeméer moom xam naa mu doon jamono bu njëkk ba danaa ko bëgg waaye damaa yor dara la may itteel du loolu sax mais ba julli jotee loolu ak takk saan la woon ba timis jotee naar yi ci boppam dañ ne ana ki doon ana chab bi doon tontu fi alxuraan bi ñu ne maa ngi ma ne ñu ne ma kay jiite ma jiite timis jiite waat gee ba ñu jógee ñu dem meneen ci ñetti fan yi benn imaam ne ma yow yaa doon jiite fële ci miiraal ma ne ko mu ne ma yow lan moo tax mënoo toog fii ngay comme ñetti fan yi dañuy wut tiyaaba rek nga man di nga nga am xalqa di jàngal su mbokki africain yi ñu gën a xam ay maxaar yi ma ne ko loolu indiwu ma mu ne ma loolu soo nekk ci maa koy wax di julli fajar rek mu jël micro bi dafa dama faa toog comme ku toog sama daara di xëy di jàngale maa ngi fàttaliku maanaam jiital boobu yooyu ñu ma doon jiital tey maa ngi woon ne yenn jàkka yooyu ànd ak ma doon buux ma dem fee nga xam ne ñooy xamuñu ma sax ñu di ma teg ci kanam ngir lan ngir alxuraan du leneen du leneen du woon leneen fii nag nga xam ne tey bët boobu dañuy xool ni du alxuraan xam ne kii dafa am lu nekk ci moom loo xam ne waxi suñu borom la melo yàlla moom la yàlla dajale ci jëmmam ci suñu borom daf koo tànn fekkoon na bët boobu dañuy xool suñ daara kon suba suñ daara fu mu nekk fu nekk bu fa ñaari photo yu nekkee wala benn photo yi moom lañ wane war a toog mais tey gis nga dañoo maa yi lañu wëlbati soppi ko Amr ibn Salama hadis baa ngi fay Buxaari nee na saxaaba yi jiital nañ ma julli fekk booba juróom-ñaari at laa am ndaxte dama leen a gënoon a bëri alxuraan kon ñoom lu wuñu woon a jiite ku man alxuraan loolu nag fii nga xam ne nit ñi dañoo dem ba gannaawal nitu alxuraan gannaawal daara gannaawal lépp seetaan seen daara yi loolu moo tax li am lépp am mu tax seen daara ba bu njëkk nit ñi di xool lañ gën a bon la di ko indi suñ lekkee ba mu des ay desit xooñ ya yax ya ñu dajale lépp gëppale ko ne yëppul ganaar ñu ko suñu amee ganaar goo xam ne mi ngi waaj a dee ci kër gi ñu ne demal yox moo toog waa mi ko waa du yàgg ko demal def suñu taal ñu ngi am a def de
mi ngi am de yaa ko gisatul rek
gaa yi dañaa xar rek lu leen jox nañ leen nga ñëw dawatu dee rek lu leen jox nañ leen lu leen jox nañ leen waaye loolu lépp loolu wax dëgg yàlla lu muy tekki lu muy tekki mooy wax dëgg moom amut fu mu jàpp ah ci lii rek la mën a jàpp léeg-léeg fa yenn daara yi nga xam ne ndeysaan li benn waay ak ay dongaam dëgg leen di benn sareet muy dem naan dañuy jàngi ci kaamil bàyyi fa daara ja wàcc ci kaamil tëj daara ja ni wàcc ci kaamil ndax de wàcc ci kaamil ba am na lu ñu leen cee jox loo xam ne ci la daara ji dund am ko fekk ne ko suñ bi nii ngay def nii kañ la daara ji jàng mu ne ko daara ji ci boppam bala ma koo mën a yor damay mën a yor daara ji dama mënta yor moo tax mënuma koo yor wax nañ dëgg loolu la yorul loo xam ne maanaam la ñuy juddoo mënu laa yor pour nga yor ko yow dana jafe lool kon noo ngi gàttal foofu di wax ne daal bi insha allahu taala ca kanam la jëm day gën di soppeeku léegi xale yi xool xale bi doon jàng alquran léegi alquran yi ni mu seete ni mu rafete ak loola na mu war a woon ak bu njëkk nañ daan nañ daan jàngee nga xam ne noonu ex rek nga jàngee xamul yooyu taxaw xamoo madda bi lan la tudd noo koy ñor di nangam maanaam yooyu sooy nekk ci woon waaye comme léegi nee naa léegi daara yi bàyyi nangam daara xewtul léegi daara yi daara yi daara yi wax bàyyi rek nga fi gis léegi nit daara yi bàyyi nangam rek bàyyi nangam rek waaye léegi bu dee ba nga xam ne ay waxambaane rek ngay ubbi ay daara kala suñu xaadim yeeg ñeneen ak ñeneen loolu moom mandarga bu rafet la loolu lépp nag ginnaaw bu ñu santee suñu borom subhaanahu wa taala itam moo ngi sant mag ñi nga xam ne ñoom la yàlla xéeroon ci alxuraan bañ jàngal ñu bañ mën a jàng faatiha ba mën koo rafetal ba ak suñu ak bu aaxiru daawaanaa alhamdulilah rabbil alamin barakallahu fiik jazakumullahu xayran Cheikh Khadim kon ñun ñëpp ñoo déggandoo moom itamit ba mu feeloo oustaz Niang Mbaye ci Navaaba te mooy toxara laab li mu ko indee ci daara daara démb ak daara tey mu wute lool indil ko lay nag ci ñàkk moyen yi nga xam ne waa démb yi ñàkkoon nañ ko moyen te waa tey wax dëgg yàlla loolu du doon seenu lay loolu du doon seenu lay ndax gis nga ko seen sëñ ji wax na ko sànq bu njëkk da ngay taxani ñëw taal taal bi duum bi ci la bu nay toog bu ñuy jàng tey jii nag courant ngay daal di contact rek mu daal di tàkk leer nañ comme ni ngeen ko gisee ci daara ci xadim tey jii tabarakallah yàlla na ko yàlla yokk kon wax dëgg yàlla duum nekku fi buy taqal dongo kon dongo bi bu demee ba taq nag war nañu seet lu ko lu ko waral ñu góorgóorlu ci bu baax a baax te loolu la muy jëriñ sëñ bi juñu na ko dana waral daara di gën a dox bu ma ñëwoon bëgg indi sama dongo fii gis dongoy xaadim yi mel noo xam ne nii bokkut ak bi ñu mel tey ah bu ma bëggee ñëwit loolu mooy teema mën a ñëw kon loolu dana yokk daara ji kon liy yokk daara ji nag soxna yi dañ ko war a bëgg sëriñ bi war koo bëgg dongo yi seen bopp sax dañ ko war a bëgg tax ñu dañuy ami wéeta kon ñoom ci seen bopp kon seet bi ñëpp ci war a jàpp ñëpp ci waaye jàpp kenn ku nekk xam ne jàpp gi may jàpp set bi itam ak jaamu yàlla gu may jaamu yàlla am ñu warloo defar buus bi am ñu warloo bale am ñu warloo li nga xam ne moom mooy ca waañ waa ña ca aju yëpp kenn ku nekk jël loo xam ne da nga koy gàll sa bopp doo xaar sax suñ daara bi dina ko gàll dañ maa nekk ci benn kilifa ca Paki Pakistan mais ñoom de dafa dañu daan jë xëy rek gis duusi marché bi set wecc duusi marché bi kenn nag musta xam kan mooy setal duusi marché bi ndek amirul mu'minin ca dëkk ba amir ba moom moo koy def kilifa ga comme nii tey jii ñu ne duusi Medina ya Macky Sall la koy setal ci misaal lañ def ba xam ko benn waaye moo ñëw boole cinq cinq heures du matin ubbi douche yi dugg ci mel ni kuy dem dem dem ba mu yëttee dafa dégg ba muy tollu fee rek la dégg bale gi naan coos coos coos coos coos coos coos mu daal di ñëw boo ko kooku déggee tànk moom daal di dugg ci benn douche korosé wu mu yaakaar ne kuy faj aajam la bàyyi pour bëgg koo bàyyi ba mu faj aajam ba pare dem mu doon continuer liggéeyam di ko def mu mu làqoo kooka itam mel ni dafa génn dem joñ ci tànkam yooyu daal di kii rek dem làquwaat mu ne ñu xeet di bale mu ne ko ah mu ne ko sàng ma sutura bëgguma lu dul torox xam nga maanaam toroxal boppam wane boppam ne kilifa itam dana nekk koo xam ne kii day bëgg yool di wàcceen martaba maanaam di toroxul yàlla tax mu muy def li nga xam ne moom mooy setal boobu nga xam ne moom nooy lay setal kon li ma bëgg wax foofu mooy ne sëriñ daara bi ci boppam sax mën naa gis ne lii ak jaamu yàlla la boo xam ne nii dana koy def te toroxul ci sama borom ba maanaam nekk loo xam ne li du loo xam ne dama ci maanaam damay dama koy sellal dama ciy sellal ba tax muy dugg ci yoo xam ne di ko def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana yëkkati ndab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana bare ak yi ni mel daana ko def te fekk na am na ñu ko war a def ci kër gi kon jikko jooju su fekkee ne dafa dale ca sëriñ daara ba wàcc ci soxna yi wàcc ci daara ji maanaam dañuy dem ba dañuy fekk yëf yi yëpp bu ñu xëyee lépp di yëwét te kenn du xam ne maanaam kenn du wane ne man maa def ci kenn du gis lu itam loo xam ne li moom daf koy def kon daal li ma bëgg wax mooy daara yi mën naa soppeekuwaat bu baax a baax a baax seet comme ni ko sëñ Xaadim waxee jazakallah xayran kon xam naa ne laaj bi mooy bi nga xam ne mooy bu mujj bi ñu jëmale ko ci Oustaz Niang Mbaye te defe naa nga yëkkati jataay bi incha allahu rabbi ndax waxtu bi fi mu nekk ni sori na kon mooy dañ koy laaj moom i tamit li ñu laajoon sëñ Xaadim lan la ci mën a indi ay leeral moom i tamit ci wàllu organisation comme moom lañ ko laajoon incha allah organisation lañ lay laaj ñan koy bismillah
waaw alhamdulilah xam naa li nga wax léegi boo ko waxul woon sax ma waxaale ko ndax damay ragal essence bi ngeen war a lakk suba yëpp ngeen lakk ko ci guddi gi su ngeen xëyee du ngeen daw de kon jéem a gàttal jotaay bi dana am solo lool. alhamdulilah ci tënk bu gën a gàtt rek jàpp naa ni comme sëñ Xaadim leeraloon na ko jëru doon di ci jaaraat waaye bu ñu xoolee l'islam ba léegi dañuy gis ni diine organisation la. ni mu nekkee diine organisation mooy sunu borom ci jëmmi boppam mi nga xam ni amut fu mu tàmbalee amut fu mu yem sunu borom mi nga xam ni amul fu mu tàmbalee amut fu mu yem bi mu nammee sàkk àddina da koo organiser doog koy sàkk comme niñ ko gisee bisab nangam comme day ñëwee ci xalisab abi hurayra bisab nangam la sàkk nangam bisab nangam la sàkk nangam bisab nangam la sàkk nangam waaye pour walla ci wàllu organisation dafa sàkk ba sàkk yi jeex ci bisab alxamis mu mujjantal maam aadama ci bisab àjjuma kon même doomu aadama mi nga xam ne moo war a doxal mbir yi sax moom lañ ko war a dénk moom lañ mujjee sàkk kon jàpp naa ne aadama bi muy ñëw ci kaw suuf boo seetloo daf fekk àddina bu organisé wu ma nekku fi àddina boo xam ne kenn organisé wu ko nga xam dafa ñëw rek nga xam ne moom mooy ñëw pour dajalewaat yëf yi déedéet suñu borom fekk na sàkk na lépp aadama dafa ñëw mel daal nit koo xamante ni dañ koo defaral kër fauteuil ko def ci ay meuble def ci lépp ni ko demal nga dëkki comme ni ko Ibn al-Qayyim di junjee ci Badaa'ul Fawaa'id ñaareel bi mooy suñu borom ci jëmmi boppam ni mu organiser yëf yi jël kilifteef ki def ko ci doomu aadama mu jiite nangam mu jiite nangam ila axiri noonu la ko organiser ci wàllu jaamu yàlla yi. xam ngeen ni borom bi subhaanahu wa ta'aala dafa am ay xeeti jaamu yàlla yoo xam ne dafa bëgg nit ñi di ko defandoo kooku ci organisation la bokk muy julli yi juróomi yoon daañ ko daje ca jàkka ja kooku ci organisation la bokk. buñ fa dajee faw ñu am kenn ku ñu jiital mu tudd imam loolu ci organisation la bokk faw ñu ànd koo xam ne tànn koo xam mooy nodd kooku ci organisation la bokk noonu boo ko xoolee tamit am na benn yoon ci at mi ci semaine bi boo xam ne war nañ faa daje te bu ñuy daje lu waay sori woon même ki nga xam ne liggéeyam mayu ko woon muy julli si waxtu wu nekk kooku bu nekkee ci àll ba ca bureau ba ca nangam war naa bàyyi la muy def ñëw ñu daje kon koo mënta woon a dajal ci julli juróomi di ngeen dajale ci julli ajjuma ci kooku ci organisation la bokk waaye bu ñu xoolee daje bi gën a rëy bi nga xam ne islam organisé ko na ko léegi damay faral dégg ñuy wax ci mbirum aj gi naan Arabie Saoudite daa war a gën a organisé waat aj gi dafa war a def nangam dama ne wallaay borom aj gi muy suñu borom su ko organisé woon woon même addina bi yëpp buñ ci jàppoon du sotti gis nga niñ ko organisé tey jii la ñuy taxaw mu naan tey jii la arafa tey jii la nangam nga xamante ni yow boo jàppoon sa arafa yi démb du wér ndax tey la war a doon loolu lépp ci organisation la bokk heure bii la ñuy def nangam heure bii la ñuy def nangam heure bii nañ dem euh, Muzdalifa heure bii nañ dem Munan bii nañ dem Arafa yooyu jàpp naa ne ci xeet organisation la boobu boo ñëwee nag ci jëmmi kër gi nga xam ne kër gi day yóbbaale daara ji daara ji yóbbaale kër gi organisation bi mënta weesu ñu am ku ñuy tuddee góor ñi ko yow yaa war a jiite kër gi jigéen ji dalaa war a topp gis nga koy jiitu faw muy am am ku topp ca gannaawam barki démb rek maa ngi koy wax xel mu rëy mi suñu borom jox jigéen su ko boole woon ak doole ji mu jox góor mu lakk dëkk bi waaye doole ji suñu borom jox góor su ko boole woon ak pexe xel mu rëy mi mu jox jigéen góor lakk dëkk bi waaye gis nga suñu borom ni mu ko organisé jigéen ji comme moom am xelam dana ko nañ ko yaw yi mu bari ay pexe comme ni ko suñu borom ji inna kayda kunna azim waaye nag doole ja ja góor am suñu borom xañ ko ko moo tax it léeg-léeg bu bu bëggee lakk dëkk bi doole jàkk koy xañ ba du ko man waaye fi mu nekk nii ku góor ki fi mu ne doole ji mu yor fi ne bu bëggee lakk dëkk bi mën naa ne jigéen ja comme xelam mën naa fexe ba wenn loxo ba du ko lakk loolu ci organisation la bokk na ko góor ki jiitu ko jigéen ki topp ci gannaawam kooku ca kër ga la ak ci daara ji ñoo ko bokk benn la ñaareel mooy barab boo dem ci wàllu organisé war naa am kuy digle am ku cay topp bu dee ci kër gi sëñ bi mooy digle ña cay topp bu dee ci daara ji it kadaalika bu dee am na borom kër ak ki nga xam mooy soxnaan ndox noonu ndox ngay tamit daal di cay topp tey ñi ci wàllu organisation war naa yegg ba su fekkente ni sëriñ daara bi néewu fi war nañ xam kan mooy nekk kilifa ga ndax jàngalekat ba lay doon ndax soxna sëñ bi lay doon ndax ila axiri loolu ci organisation la bokk comme ni ko mbokk mi junjee sànq wax dëgg yàlla nga ñëw organisation amut daanaka yow boo ñëwee ci kër gi doo xam koy waxal boo ñëwee ci daara ji doo xam koy waxal loolu jàpp na ne bokkul ci organisation beneen bi ci des mooy fexe ba ndongo yi mën a set te li liñ seetluwul ñun mooy gis nga organisation ak set ñoom ñaar benn mënta dem bàyyi morom fi ne boo demoon ci benn daara nga fekk ñu organiser wu ba mel nañ wala mel waaye set amut du tax nga naw leen boo demoon fee ñu set ba cet gi jéggi dayoo waaye kenn organisé wut daanaka kenn ku ci nekk imaam nga saar wala neex tari foog naa ne su boobaa it mbir mi du jaar yoon kon li ma bëgg a wax mooy organisation ak cet ñaar lañ yoo xamante ni mënuñoo teqali ko faw ñuy ànd ndénkaan bi may jox foofu nag pour jeexalee ko mooy li jëm ci daara daara faw mu am ku ñuy tuddee ab sëriñ daara kookay kilifa ga faw ñu am ku ñuy tuddee yaayu daara sëriñ daara bi lu mu jàmbaare jàmbaare bu ko soxna si jàppalewul ci organisation du sotti waaye gis nga soxna si lu mu jàmbaare jàmbaare am na ci xeeti kilifteef loo xam ne ku góor kaak ko ca mën a dimbali heure bii la ñuy yeewu diw moo war a bale fii maanaam mbir mi foog ñu organiser ko boo seetloo mbooloo mu mën a bale daara ji ñu ngi fi kon lu waral daara ji taq ñàkk a organiser moo ko waral.
jëng rek jëngante.
jëng suñu xarit bi nga ne ngootoon ni la baat bu yàgg nga ko waaye jëngante baat bu yàgg nga ko gis nga kon loolu moo lay wane kon organisation amul beneen bi ci des mooy mbooloo mu war a saytu waxtu lekk yi ak yar xale yi kuy lekk da ngay def nangam kuy def nangam mbooloo moo di liggéey loolu mi ngi fi. waaye ñàkk organisé mooy waral fi mu nekk nii fu ñu neex teg bool ba fu la neex sukk xale bi nu ko neex lay def kenn du ko kon contrôlé loolu tamit wax dëgg yàlla war nañ koo soppiwaat ci sunu daara yi waaye dama jàpp ni gis nga yaayu daara beeg sëriñ daara bi kenn waru leen a jiitu ci organisation ak cat gi waaye nag ndénkaan bi ma koy jox man maa ngi koy gën a jëmale ci jigéen ñi yàlla xam na ni jigéen bu góorgóorloo lu góor mënta defar ci kër sax jigéen mën na ko faa defar ndax jigéen borom bi da koo may ci doolay defar kër loo xam ne mayu ko góor loolu tamit ngeen bàyyi ci xel gis nga góor xaaral xaaware wuti indi moom amul kenn ko ko ci man moom waaye bu dara desul lu dul defar kër gi mu set defar kër gi mu organisé wu kooku jigéen ji ci gën a man keneen ku dul moom bal sax nag man dem naa ci ay barab yoo xam da ngay gis ni daara ji bu doxee sëriñ daara bi sax xam na ni soxna see tax ci wàllu organisation ci wàllu tegal fii jàppal lii tuural pot bi defal na le ah taxawal fii e xale yi sukk leen fee diw bul sukk fii sukkal fële lal leen sufra bi mooy laltu gi balaa ngeen a lekk raxasu leen diw sottil leen bu leen jàmbanoo yéen ñëpp seen loxo yi xam ngeen loolu tamit ñu ngi koy def ay baaxul parce que loolu bokkul ci cat ndax fi ne buñ dajee paan bi ñu ni ñëpp kaay leen raxasu léegi man sama microbe yi daal di dem ci pot bi bàyyi ma sàmba ñëw moom it daal di indi ay microbe bàyyi ma dem ba ñëw jël suñ ñaari microbe yëpp doole ci loxo loolu du cat set gi mooy ñu teg ak satala kii tàllal ma raxas ko mu dem ca keneen ñëw mu raxasuwaat ñu koy sottil loolu moo dig cat ñaareel mooy bu ñu lalee li nga xamante ni mooy sufra bi léegi liñ nga xam moom bi ñuy ndékk moom lañ lal bi ñuy añ moom lañu lal bi ñuy reer ñu bëgg koo lalaat te fekk taq-taq yi ma nga te kenn satalagu ko jàpp naan du tax muy sotti kon wa day day gën a taqal yére yi ñaareel mooy la ca rot doo ko mën a lekk boo ko bàyyee foofa def nga lu baaxut boo ko faree lekk def nga lu gën a bon kon jàpp naa ne yooyu yëpp ci organisation lay laaj kon wax dëgg yàlla ñu ngi dénk sëriñ daara yi ndongo daara yi surtout nag soxna yi ñu gën a góorgóorluwaat bu baax a baax a baax ci organisation boobu dana waral comme ni ko mbokk yi waxee sànq dinañ xemem daara yàlla xam ne loolu ñun ñëpp lay dal de gis nga fi mu nekk nii ak cet ak ak laab yàlla mooy def kuy ku baax bëgg nga ko organisation ak lu nekk tege fa mu war a tege fi mu nekk nii boo jugoon xam nga ne nangam ma nga barab sangam nangam ma nga barab sangam loolu ci xeetu organisation la bokk ku gis ni ko yonent doon defee sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ni lu jëm ci xare ba am na ku mu teg ku- koo xamante ni moo yore yëf ya masalay xare ya moom moom lañ koy laaj te da daan digal guñ mooy ndigalam su leen waxee def leen def leen feeg nekkul ak mooy yàlla nga ñëw ci wàllu jàkka jeeg mbirum nodd ma su ngeen déggee nodd ak Bilal xam leen ne nangam moo xew su ngeen déggee nodd ak Ibn Umm Maktum xam ngeen loolu organisation la bu dul woon loolu fi ne kenn du xamee fajar gu njëkk sax fajar gu mujj bi beneen bi ci des mooy bu fekkente ni ci wàllu cet gi lay kadaalika bunt boo ubbi rek da ngay gis ni islam organisé na ko organisation boo xamante ni bu fekkee manque de moyen moo amoon wax dëgg yàlla yooyu amatu su dee ñàkk xam moo amoon léegi ak xam am na su fekkente ni ñàkk amuk yëg-yëg la wax dëgg yàlla nit ñaa ngi yëg bu baax a baax di xam addina bi ni muy doxee kon ñi dut ay jullit ci jullit ñi lañ waroon a jàngee ak cet tey jii waroon nañoo fexe ba ndongo bi nga xamante ni moom moo jóge ci daara bi dem bu demee ñam fekk ñoom ñoo ko war a ñee loolu mën naa nekk dëgg la comme ni ko sëñ Xaadim waxee bu njëkk moom même buñ ko jéemoon du mën a nekk waaye tey jii mën naa nekk waaye fi mu toll nii ñu bare bare bare sa waruñ ci daara lu ko waral parce que cat ga demewut noona lekk ga demewut noona naan ga demewut noona sol ga yére ka daalika buñ demoon ba yegg ci cat gi àgg ba ci xalqa bi ku fi dugg si sa yére daa tirin dañ laa war a dàq ku ñu séen nga dem ca wana wa te yore woo ndox am na pénition bu war a tegee ci sa kaw ku ñu séen nga ñëw raxasu te fekk balaa ngay raxasu maroo sa loxo yi ba mu set comme ni ko lislaam jàngale am na daan yu tege ci sa kaw waaye léegi kan moo lay teg daan ya ñaanal mooy kan moo la jàngal loola yooyu yëpp ay mbir la yoo xam buñ ci gën a góorgóorlu dana am solo kon nu ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu defal ñu tawfiq ba lii jotaay bi lu muy gàtt gàtt liñ ci jot a déggee mën a barkeel ba mu mën a suppiwaat leen ci doxinu daara wa ma zalika allah bi aziz asalaamaaleykum wa rahmatullah barakallahu fikum defe naa ne ngoon bi neex na lool masha allah ndax ay xeeti xam-xam feeñ na fi tey yal nañ ko jëriñoo yal na yàlla defal ñu ko ñu dégg ko dégg ko donc buy jàng te bëgg a jëriñu waaye tamit yàlla defal ñu ko suñu xol ñu nekk loo xam ne buñ fi jógee ëllëg man nii bu ma delloo sama daara yéem caa góorgóorlu yéem ko kas foofa incha allah ñu góorgóorlu ci ak keneen ak keneen yal na yàlla defal tawfiq ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والصبر والغنى ونعوذ بك من الكفر والفقر والضلال والفقر